يسمني الله عند الجاول إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري السلام عليكم ورحمة الله sëriñ bi nee na mi di siyaare ñëpp teewlu di teewlu ndax bis bu mag bis bu mag bii ñu jëm nu gàttandiku bu baax a baax ci gën cee yeesal nag sunu lépp gën cee dëgëral sunu lépp mu ne bis bu màgg bu rëy mi ngi ci kanam sant rek nu ci boo xam ne sant rekk ñu ci war cant gi ñu ngi koy tàmbalee ci sant sëriñ bi santale ko santale ko sëriñ bi moom sëriñ bi moom wàccoo nag njaboot gépp lu mat a def rek def na ko diggante mag njaboot gi lu mat a wax wax na diggam ak njaboot gi wàccoo nag ñi mu seqal boromam ñëpp wàccoo yi ñi mu seqal boromam ñëpp di yàlla yi muy malaayka yi ak yonent ak kilifa yi topp ci ñoom ak ya ñi nga xam ne yàlla jox na leen xam-xam ñuy jëfe seen xam-xam ñi mu bokkal boromam yëpp wàccoon ak ñoom kon nun sunu borom daf noo defal tawfeex ju rëy rëy ndax boole gi mu boole moom Lol nak war na tax señ bi buñ meloon ni mu mel digam boromam la ciow la borom sop def ko ci mom la sun le sop sunu borom mu def ko ci mom loo xam ne xel mënu koo dab wëlbatikuwaat fabaat léppam delloo ko borom wàccoog ñëpp ña fa borom ne fa borom kon nag war nañoo seetaat sunu bopp bu baax ndax tawfeex ju rëy jooju ñu am ak lu ñu lot lot lot jéem koo delloo suñu lépp jéem koo delloo suñu lépp loolu nag loolu nag laaj na jëfe laaj na jëfe laaj na jëfe tàmbalee ko ci leeral xel yi nañ war a gisee sëriñ bi nañ ni ñu war a gisee sëriñ bi sellal xol yi. sellal xol yi. ci nañ war a a àndeeg sëriñ bi. ci nañ war a mën a àndeeg sëriñ bi. yokk yitte yi. yokk yitte yi. ca na ware ca na ware waree. am na kàddu yu ma daan junj ci jamonoy sëñ Sidi Maxtaar. am na kàddu yu ma daan junj ci jamonoy sëñ Sidi Maxtaar. ci wàllu dëkk bi. waaw ci wàllu dëkk bi. ñi am tawféex ak dëkk ak sëriñ bi. ak ñi am tawféex ak yaakaar sëriñ bi. ak ñi am tawféex yaakaar sëriñ bi. di fi ñëw di fi ñëw. loolu nag ñaar rek ku sëq loolu nag ñaar rek ku seq. ci wàllu doxinu adduna. ci wàllu doxinu ñi nga xam ne ñoo fi dëkk. ñi ci ñi nga xam ne ñoo fi dëkk. war nañoo mën a doyloo sëriñ bi ci lépp. war nañoo mën a doyloo sëriñ bi ci lépp. wëlbatiku it nag nekkal ko. walbatiku it nekkal ko. luñ ca néew néew néew doole. luñ ca néew néew doole. ñu def ci seen lépp ñu def ci seen lépp. nekkal sëriñ bi ni mu ko ni li taxoon mu ñëw fii. nekkal sërëñ bi ci li taxoon mu ñëw fii. ñooy ñi loolu ñooy ñooy ñi fi ñi am tawfeex dëkk dëkk dëkk bi. loolu ñooy mooy ñi nga xam ne am nañ tawfeex yi dëkk ak sëriñ bi. muy waa dëkk bi muy waa dëkk bi. ak ñi nga xam ne dañoo dëkkuñu ci biir dëkk bi. ak ñi nga xam ne dëkkuñu ci biir dëkk bi. tey dox yéen dox yéenu àdduna. tey dox dox yéenu àdduna. ñoom it dara warul leen. ñoom it dara warul leen. lu doyloo sëñ bi lu sëñ bi. sëñ bi rek moo leen fi war a andi. sëñ bi rek moo leen fi war a andi. nee na mas naa koo wax. ci jamonoy sëñ Sidi Maxtaar. boobu euh, président Macky Sall mi ngi toog. mu ne ko fii. mu ne ko fii. kenn jëflewul jëflewul kenn ku dul sëriñ fii kenn jëflewul fii kenn jëflante fu fii kenn ku dul bi. kon ñaar ñooñu rek ku nekk. kon ñaar ñooñu rek fi nekk. ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñoo dëkk ci dëkk bi. ñi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi. ak ñi nga xam ne ñooy wut si wàllu ci dëkk bi. ak ñi nga xam ne dañuy wut si ak wàllu ci dëkk bi. loolu nag mën nañu ñëpp nag mooy mooy mën nañu ko delloowaat ci doxinu adduna. loolu lépp nag mën nañu ko delloowaat ci doxinu adduna. kon ñi fi nekk. kon ñi fi ne. dañoo war a doyloo sëñ bi. dañoo war a doyloo sëñ bi rek. waruñoo jéggaani fenn. waruñoo jéggaani fenn dara. Eh, eh, ku fi nekk. ku fi nekk. te góorgóorlu bu baax te bu baax. nekk nekkal fi sëriñ bi. nekkal fi sëriñ bi. ni ko bëggee. ni mu ko bëggee. mu waree noonu. mu waree noonu. fa tabaarakallaahu. fa tabaarakallaahu. sa tawfeex ji nga am. sa tawfeex ji ngay am. bay tudd sëriñ bi ñu dula tudd. bay tudd sëriñ bi ñu dula tudd. tawfeex joojee. tawfeex joojee. kanam rek lay jëm kanam rek lay jëm. adduna bari nay gàllankoor lool adduna bari nay gàllankoor lool. bari nay fitna lool bari nay fitna lool. bari nay. teq-teq bari lol teq jafé jafé lol lepp bari nay ngi ci biir doxinu aduna lepp nak mi ngi ci biir doxinu aduna la la nu ciy musal nag. la nu ciy musal nag. nekkal serigne bi rek nekkal serigne bi rek. nim ko bëggé won nim ko bëggé won ñu nekkee ko ni fi ñu nekkee ko ni fii. nekkal ko fi nekkal ko fi. loolu moom rek mo nu ci mëna a moo ci mëna mussel musal. rek mo nu ci mëna mussel dudul lu dudul loolu. bu dee ñi fi dëkk. bu dee ñi fi dëkk. war nañoo góorgóorlu bu nañoo góorgóorlu bu baax. nekkin wi nekkin wi. bu bu teguwul ci yoonu sëriñ bi. bu teguwul ci yoonu sëriñ bi. ni ko sëriñ bëggee ni ko sëriñ bi bëggee. ak lu kër kër ji bari bari. ak lu kër kër ji bari bari. ñàkk barke rek la ñàkk barke képp la indi. ñàkk tuyaaba kon lan la ñuy ci loolu. kon la ñuy musal ci loolu. ñu jéem a xam sëriñ bi. ñu jéem a xam sëriñ bi. nekkal ko ci lim bëgg. nekkal ko ci lim bëgg. sëñ bi nag bëgg. sëñ bi nag amut ak bëgg. benn boromam rek la bëgg. rek la bëgg. ak yonent bi ak yonent ak yonent bi nga xamante ne moom lañ ko digal moo ko jox ndigal. nee na sunu borom nee na bind naa doomu aadama ci bindin bu gën a rafet. waaye nag danaa ko dellawaat mu gën a suufe lool ba mel ni noonu musu koo mel. nan jéem a dégg a dégg jooju bu baax. loolu moo nekk. ndax loolu moo nekk. dëgg la. dëgg la. yërmande yàlla yemut fenn. Eh, yërmande yàlla yemut fenn. sëñ bi yemut fenn. mayeeg sëñ bi yemut fenn. waaye loolu la yàlla wax. waaye nag loolu yi la yàlla wax. bu ñu góorgóorloo bu ñu góorgóorloo. dañuy dañuy dolliku di wéy. dañuy dolliku di wéy. mu mu gën a mate. na mu gën a mate. bu ñu góorgóorluwul bu ñu góorgóorluwul. dañuy dellu gannaaw di dañuy dellu gannaaw di gën a suufe rek. doomu aadama yëpp ko loolu doomu aadama yëpp ñoo ko bokk. kenn ëpp ci wàll. waaye kenn ëpp nu ci wàll nag. ndax sëñ bee tax ndax sëñ bee na mu doxee diggante ak boromam. na mu doxee diggante ak boromam. jëflante kook ñi mu seqal boromam ñëpp. jëflante koog ñi mu seqal boromam ñëpp. ñëpp mu wàcc ñoom ñëpp mu wàcc ñoom. dox leen seen àq yi ba mu mat sëkk. dox leen seen àq ba mu mat sëkk. mu dellu ci fa boromam. mu dellu fa boromam. loolu. kon lool war nañoo xoolaat suñu bopp. waaw kon nag war nañoo xoolaat suñu bopp. Euh, dëkk bi dëkk bi. bu nu góorgóorloo bu nu góorgóorloo. nekk fi ni ko sëriñ bi bëggee. nekk fi ni ko sëriñ bi bëggee. texeeg adduna ak alaaxira rek la ñuy andil. texeeg adduna ak rek la ñuy andil. defarug biir ak biti rek la ñuy andil. defarug biir ak biti rek la ñuy andil. mucc ak tey ëllëg rek la ñuy buñ ko deful nag buñ ko deful nag. lu ci waay gis. lu ci waay gis. bu mu ko bu mu ko bu mu ko jiñ xam ne moom moom na xam ne moom mooma. càggante rek la càggante rek la. kon loolu. kon loolu. war nañ a di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko fàttaliku waxtu wu nekk kon loolu war nañ di ko ku waxtu wu nekk di ko jéem a dund di ko jé di ko jéem a dund di jéem a nekk di ca jéem a nekk sunu kem kattan sunu kem yëngatu boo xam ne nag yëngatu boo xam ne ñàkk barke rek moo ciy mujj ñàkk barke rek ciy mujj mar détaillé ñàkk tuyaaba rek moo ñàkk tuyaaba rek ciy mujj gàcce rek ciy mujj. gàcce rek ciy mujj. gàcce ak gàcce. ga gàcce ak gàcce. yéen moom rek ciy mujj. yéen rek ciy mujj. yal nañu ci yàlla yal nañu ci yàlla musal amin amin kon nañu góorgóorlu. kon nañ góorgóorlu. lu baax ak lu bon rek fi nekk. lu baax ak lu bon képp fi nekk. góorgóorlu ci suñu kéem kattan. góorgóorlu ci suñu kéem kattan. ne ci lu baax ne ci lu baax. di wéy ci ndigal. di wéy ci ndigal. suñu kéem kattan. suñu kéem kattan. wattandiku tere wattandiku tere. di bëgg lu baax di bëgg lu baax. te yàlla rek tax te yàlla rek tax. di bañ lu bon di bañ lu bon. te yàlla rek tax di def lu baax di def lu baax. te yàlla rek tax. loolu mooy sunu sunu warteef. loolu yi mooy sunu warteef. loolu mooy warteefu ñi nga xam ne am nañ tawféex nekk ci dëkk bi. loolu mooy warteefu ñi nga xam ne am nañ tawféex nekk ci dëkk bii. tawfeex ji tawfeex ji mën nay dolliku di wéy tawfeex ji day mën nay dolliku di wéy waaye mën nay wàññi ko ba jeex tàkk ñi nga xam ne nag dégg nañ sëriñ bi dégg nañ sëriñ bi ñi nga xam ne dégg nañ sëriñ bi ñàkkul luñ ca xam ñàkkul luñ ca xam ci ci doy gu sëñ bi doy sëkk doy gu sëñ bi doy sëkk doy nu doy nu tey ak ëllëg doy nu di fi ñëw ñooñu di fi ñëw di wut si wàll. di fi wut si wàll. fu ñu ko wut fu ko wutee wut kudut seriñ bi. fu wute ko wutee kudut sëriñ bi. fudut ci sëriñ bi perte nañu perte nañu. waaw kon ñaar yooyu rek fi nekk nag. ñi fi nekk ñi fi nekk. nañ doyloo seriñ bi nañ doyloo sëriñ bi. nekk ci seen nekk seen diine. nekk ci seen diine. seen kem kattan seen kem nekk ci seen taalibe nekk ci seen bëgg lu baax. nekk ci seen bëgg lu baax. seen kem seen kem kattan. di jëfandikoo makaarimul axlaaq di jëfandikoo nag makaarimul axlaaq jikko yu rafet yi ak yu baax yi waaw jikko yu baax yi jikko yu baax yi mi ngi ci nun jikko yu bon mi ngi ci nun jikko yu baax yaa ngi ci nun jikko yu bon yaa ngi ci nun ñu doon jéem a góorgóorlu di xeex ak xeex ak jikko yu bon ñuy jéem a góorgóorlu nag di xeex ak jikko yu bon yooyu di jéem a góorgóorlu di jëfandikoo jikko yu baax di jéem a góorgóorlu di jéem a jëfandikoo jikko yu baax yi noonu rek noonu rek moo moo moo moo moo nuy musal moo nuy musal moo nuy may jàmm moo nuy may jàmm mooy woyefal fitna ji mooy woyefal fitna ji. loolu buñ ci nekkee. loolu buñ ci nekkee. saadatu daarayni rek la ñuy andil. saadatu daarayni rek la ñuy andil. saadatu daarayni rek. saadatu daarayni muy texe tey ak ëllëg. ëllëg la gën a yomb ëllëg la gën a yomb. ëllëg la gën a yomb. boo amee njëg yërmande suñu borom njëgalam rek foofu mu jeex tàgg. boobu foofu moom boo amee njëgalu suñu borom ak yërmandeem rek mu jeex. fii nag fii nag. da ngay jëf dangay jëf. di jariñu di jariñu. ba yëg ne yaa ngi jariñu. ba yëg ne yaa ngi jariñu. ba yëg ne yaa ngi yaa gën a mucc. ba yëg ne yaa ngi gën a ma mucc ba yëg ne yaa ngi gën a texe. ba yaa ba yëg ne yaa gën a texe. loolu ci dund gii rek loolu ci suñu dund gii rek la nag. ku ci bëgg jàmm nag ku ci bëgg jàmm nag. bëggal sa bopp jàmm sa bopp jàmm. bëgg bëgg a noppalu. bëgg a noppalu. bëgg a texe. bëgg a texe. da ngay da ngay da ngay da ngay da da ngay sóobu yoonu sëriñ bi. da ngay sóobu yoonu sëriñ bi. da ngay yoonu sëriñ bi. da yoonu sëriñ bi. Hmm. ndax sëriñ bi gisul dara. ndax sëriñ bi gisul dara. lu dul borom ak yonent bi mu ko tegtal bi mu ko tegtal rek. kon eh, am nañ tawfeex ju rëy de. kon de am nañ tawfeex ju rëy de. mën nañoo am xéwal gu rëy nag. mën nañoo am xéwal gu rëy nag. fii ci dundug adduna gi fii ci dundug adduna gi. ak dundug alaxira gi di ñëw. kon ñun ñi fi dëkk. kon ñun ñi fi dëkk. nu góorgóorlu bu baax. buñ góor nañ góorgóorlu bu baax. kem kattan kem kattan. alhamdulilah rabbil alamin suñu borom moom ginnaaw boo boo boo jógee. boo boo boo boo seetlee rek moom mu xas wuuti la. ndax alhamdulilah rabbil alamin bi nga xamee ne suñu borom moom. boo waaxoo jëm ci moom mu waaxu jëm si ci yow. loolu moom mooy mooy boo jógee jëm ci moom rek mu gàttandu boo jógee jëm ci moom rek mu gàttandu la. Ah, na jógi dëggu rek na jógi dëggu rek. na dëggu rek na dëggu rek. kon loolu mooy suñu warteef. kon loolu yi mooy suñu warteef. ku fi mën a ñëw itam. ku fi mën a ñëw itam ak fu mu mën a jógee. ba ñëw Touba sëñ Touba képp la fi indi. bu fi jéem a wut dara rey dara rey adduna. bu fi jéem a wut dara rey adduna. yemale ko sëñ Tuubaa looy wut rek yemale ko sëñ Tuubaa lu ko may pertement rek lu ko may pertement rek la leen eh, ñi fi nekk doyloo sëñ Tuubaa kon ñi fi nekk doyloo sëñ Tuubaa ñi fi ñëw di wut si sëñ Tuubaa ñi fi ñëw di wut si sëñ Tuubaa loolu yi rek mooy jàmm ji waaw ñi fi nekk doyloo sëñ Tuubaa ñi fi dikk di wut si sëñ Tuubaa mm-hmm. waaw rek mooy mbir mi ñun ñi fi nekk nañ doyloo sëñ Tuubaa pexe yeeg yooyu yëpp yooyu yëpp amul benn njëriñ amul benn ca gàcce rek lañ xalaat xaraab maanaam dem ba nga xam ne lépp day gent rek yàqu maanaam dañ góorgóorlu bu baax góorgóorlu lu baax kon alhamdulilah mën nanoo dellusi kon alhamdulilah mën nanoo dellu si ci waajtaay bi ci waajtaayu bis bu mag bii di bëgg a ñëw

kenn ku ne ci nag. kenn ku ne ci nun nag. feeg bis ba feeg bis ba. képp bépp bépp taalibe. bépp taalibe. ak képp ku bëgg sëriñ Tuubaa. ak képp ku bëgg sëriñ eh, na nga na nga na nga am pësteefu. na nga am pësteefu. jàng kaamil. jàng ab kaamil. tàmbalee ko cant gi. tàmbalee ko cant bi. cant gi ñuy war a sant sëñ cant gi ñuy war sant sëñ di ko ko santale. ak di ko ko santale. kenn ku ne. kenn ku ne. na am pësteefu. na am pësteefu jàng ab kaamil. boo ko mënee boo ko mënee. tàmbalee ko cant gi. tàmbalee ko cant ak cant léegi. ak cant léegi. ku ku ku ku yàlla dogal mënoo ko. ku yàlla dogal mënoo ko. am na ñu ko mën ca sawet am na ñu ko man ca sawet nga nga nga seral ku la ko jàngal. nga seral xol ku la ko jàngal. loolu yaakaar naa ñëpp loolu ñëpp mën ko mën ko def. loolu defe naa yaakaar naa ñun ñëpp mën nañu ko def. yomb na lool yomb na lool. te jëf ju rëy la. tey jëf ju rëy rëy. mën naa lépp mën naa defar lépp. kon noonu rek la demee nu góorgóorlu lu baax alhamdulilah rabbil alamin la in shakartum la azidannakum feeg yéen ngi sant rek muy dolli ah, mhm. kon gannaaw bis bu bii di ñëw kon nag gannaaw bis bu mag bii di ñëw benn bis bu ko kawee benn bis bu ko kawee bis bisu cant rek la ndax bis cant rek la ah, nan ko waajal bu a baax a baax a baax lenn luñ mën a dolli ci cant gi nag. luñ mën a dolli ci cant gi nag. ci xeeti yu baax yëpp. ci xeeti yu baax yëpp. luñ ca mën rek luñ ca mën nañ ko def. noonu rek la demee noon yi rek la deme ñoo ngi sant ñëpp nag. nee na ñoo ngi sant ñëpp nag. Eh, jaam bi moom moom xamee ne jaamu boromam la. moom bi mu xamee ne jamu boromam la.

nan gën a yeesal suñu jaayante gën a dëgëral suñuy laxasaay gën a dëgëral suñuy laxasaay gën a sóobu sëriñ bi gën koo jublu gën koo jublu suñ lépp na jëm suñ lépp suñ lépp na jëm foofu loolu ci tawfeex ju rëy rëy lay jógee di xew xewal gu rëy rëy rëy at googu àdduna ak alaxira kon nan sant yàlla te góorgóorlu rek jërë ngeen jëf barakallah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu bàyyi ko sëñ Bass kàddu gi. salaamualeykum wa rahmatullahi taala ci ndigalul sëriñ bi ñuy àggale tuuti ci kàddu yi rek ci ndigalam ndax boo xasee ba yëkkati kàddu Pastef muy waatu di waxaat ci kon ci ndigalam rek ak ci barkeem di. ni ko sëriñ bi waxee léegi rek mooy di fàttale ñëpp bis bii nga xam ne moom lañ dëgmal mu war a dëppoog alxames fukki fan ak juróom weeru safar dëppoog fukki fan juróom ci weeru septembre bi. sëriñ bi mi ngi koy fàttali bokku jullit yëpp di ko fàttali bokku taalibe bi yëpp di xam ne ndigalu sëriñ Tuubaa la loo xam ne moo wax ne na ko ci ñëpp sant la yàlla muy loo ne moo ko daan def. sant santoon ko taalib yëpp wax ne képp koo xam ne mbégam sa bu Yuusufa agsee na nga ko ci sant la yàlla li tàmbalee ci ganaar ba ci gileem kon loolu mooy li ci sëriñ bi santaane woon li ci des sëriñ bi wax na ko léegi mooy digal ne ñëpp ko képp koo xam ne taalibe nga wala ngay ko bëgg sëriñ bi nga jàngu kamil sant le sëriñ bi boroom sant sëriñ bi waajale ko bis bi loolu nag ni ko sëriñ bi waxee mën naa defar lépp bu ko tuddee ci wàllam ñëw rek kon nañ gëm ne suñ lépp mën na cee defaroo kon nag ñuy ñaan ñu àgg ca bis ba jàmm xam ne biss la boo xam ne bis bu ko ëpp amut ndax sëriñ bi dafa waxoon ne suñ borom da ko daa da ci daa teg ay nattu ba bis bu mujj ba ba nga xam ne nattu yi jeex na suñ borom xamal ko ne ko nattu yi jeex na sak pay ci des bi fi saa su ak seetee nattu yi daa toll rek ni la xew li toll saa su ak kenn ku ci ne xéewal gu ko suñu borom doon defal dana ko fula ba mu agsi sëriñ bi it waxoon ne bis bi buñ demee ba ëllëg suñ borom mi nga xam ne moo bindoon adduna bind guddi bind bëccëg ci kattanam ndax ne na ay bis amu fa waaye bu ñu agsee ci bis ba màggalu tubaan daan xew ca adduna kenn ku ci ne da ngay xéewal gu dolli ko ci yow daana wax itam ne ñaar buñ dendee kii di ko màggal kii di ko ñàkk a waxtu nekk ci res di seen lu ko lu moroom ji di tiime kon nag bis bi mooy suñu lépp mooy suñu defarug àdduna ak alaxira te sëriñ moo bindoon te dara gën te wir ay waxam wax sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shafihan li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi muy li li a saw wustu kéem bii nga xam moom la ñu màgg tey du dara lu may ñaari yëf benn bi mooy daraja ji suñu borom bëggoon mu am ko te mooy al abdul xadim ba ca sit mooy an akoona shafian li xaw mi an akoona xaadimun fi daw mi mooy xettali xeetu rasulullahi sallallahu alayhi wa gi nga xam ne wax na ne bu demutoon ci tukkeem ba ñëpp daañu tabbi sawara kon nañ xam ne bis bii mooy suñu lépp kon ñu ñaan ñu ak ja jàmm te suñu borom yàggal fi sëriñ bi dëgëral taxawaayam ba ni mu siggale lislaam siggale ko yoonu murit ba la Serigne Touba waxoon ne bokk na ci mandarga mandargam texe mooy benn xool bu baax du ko du ko delloo Serigne bi yàlla def na ko ci moom wa min shahaadatil xata xaytu qasat ay laa yurdahu fa adushir asad kon nag suñ yitte yëpp mooy ñaana ko mu yàgg fi ba lim yéenee liggéey Serigne Touba ci lépp bëgg ñëpp defaru li muy wax ne li ma yéene sama bopp laa yéene yëpp fenn ci biir kàddu yi mooy bu soñoon ñëpp defaru bu soñoon ñëpp euh, dëddu adduna sànni ko te dégg man Serigne Touba ndax xam na loolu mooy suñu njëriñu tey mooy suñ njëriñu ëllëg kon nag la waxoon rek ne xool leen ci man ñun ñëpp man nañ maase xool ci aw doxinam mënuñu mënuñoo teg fiñ teg suñ tànk fi ñu ko teg nag waaye nañ ko jéem a roy buñ ko jéemee roy rek duñ àgg fa mu jëmoon waaye yàlla mën nañu ci xettile ci loolu ndax moom kat yàlla defal na ko tawféex ndax ni ko waxee woon boppam ba mu jugee rek la dëddu àdduna sànni lépp dëgg ma Serigne Touba loolu nag ba nëgë ni kon la Cheikh Ibrahima Fall daa wax Serigne Touba rek bu ko Serigne Massane wàccee mu ne ko Mbàkke de du ma wàcc ndax yaa ñu njëkk a xëy ci toolu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam te ma nëgë ni ko kon na ko xool ci moom fi mu toll. te waxtu nekk boo ko gisee mu gën laa farlu ëpp la yitte ëpp taxawaay loolu ñu topp ci ginnaaw ñëpp war nañ cee laxasaayu roy ci ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yasmini llahu inda jeewali iblisa id naadaytuhu bi yaa wali نفى لغير الله قبل سندري بأهل بذين الأسود الكدري